waaw recommandation yi nga xam ne moom la membre yi di doxal mooy moo recommandation yi membre yi waxoon ñoom seen jëmmi bopp ndaxte bul fàtte ne 2014 dafa amoon loi boo xam ne dañ ko teg ngir wàññi luyaas yi biñ ci jógee président de la république Macky Sall ne nañ ko évaluer ñi nga xam ne ñoo ko laajoon doon ko doxal nañu wax seen xalaat ñu def commission évaluer bi ñu évaluer ñu dem concertation ñu ne war nañ mën a wàññi luyaas yi encore waaye nag li gën a am solo mooy war nañ mën a am benn commission boo xam ne bu buñ ko tegee ku am jafe-jafe ndaxte li amoon bu njëkk ba mooy commission dafa am waaye boo amee jafe-jafe doo am ku la ko fajal ku dul dem tribunal te dem tribunal dafa yàgg dafa yéex waaye li am solo mooy nga dem foo xam ne boo waxee ñu dégg la bu fekkee jafe-jafe am na ku mën a leeral euh, problème bi fan la jógee ak naka lañ koy saytoo looloo tax nag ñu teg commission yi commission bi nag mënoon na doon commission bu nationale waaye li nga xamante ne comité d'évaluation moom la wax mooy nañ ko teg waaye nañu fexe tamit départ région bu ne nga am benn am na département yoo xam ne ni ñu bindoo ci ni ko dëkkee fu mel ni dakaar ak euh, li ci topp dakaar pikin Guédiawaye euh, Rufisque Kër Massar la fa dëkk ci ci ci mbooloo war nañ mën fexe ba département bu ne mu am commission bu ko defee ñu mën a def liggéey bu mucc ayib nit ñi bañ di xaar ba li leen daan fekk tribunal di leen fii. waaw mooy teew teey ba pare déglu et puis wax li nga xam ne moom la yoon wax ndaxte sénégalais. boo ko waxee defe naa lu yenu maanaa wala lu xel mën a nangu mu nangu ko ndaxte ñu bëri ñu ngi xiiroo di ŋaayoo ci mbiru luyaas waaye ñàkk xam li yoon teg ndaxte yoon protégé na bailleur bi ndaxte ki nga xam ne moo liggéey ci ñàkkam ba tabax këram di ko loué am na ay yelleefam waaye ki nga xam ne tamit mooy liggéey weer bu dee di fay luyaasam am na àqam am na yelleefam donc li nga xam ne moom la yoon wax mooy ku ci ne am na lu ñu la sàkkal te muy sa ak sa yelleef loolu nag la commission bi war a def ndaxte loolu la juge yi def waaye dem ci juge dafa dafa dafa sori dafa métti moo tax ñu ne nag ci diggante ay mbokk ci diggante dëkkandoo war nañoo mën a daje waxtaan ku ne ñu fàttali li yoon wax boo ko déggee dana mën a tax ñu def li nga xamante ne moom moo gën ci ñëpp. waaw ñàkk ñàkk xoolaat luyaas yi mooy andi jafe-jafe waaye soxna si xoolaat luyaas yi du andi jafe xoolaat luyaas yi garab la buy faj lor du dëgg nu ko wolof di waxee jañ lor defe naa baatu jinjeer sax fa la jógee jañ lor donc seet luyaas yi moom mooy. jañ euh, lor lor boobu nag mooy toog seetaan rek mooy bu jafe-jafe amee nga jàpp ne rek euh, yàlla baax na dina ñëwaat lii état def mooy saytu déglu borom xam-xam yi am ay évaluation yu ñu def euh, statistiques yi wane ko ñu wootee woo bailleurs yi woo locataires yi woo ñi nga xam ne ñoom seen jëmmi bopp ñoom dañuy louer ak ñi nga xam ne ay agents immobiliers lañ ñu toog waxtaan ne naka ngeen gis ne lii mën nañ ko saafara ñu ne mën nañ wàññi fii mën nañ yokk fii mën nañ def nii looloo indi lii yëpp du lu état tëju rek ci boppam def ko ñu pare joxaat commission concertation ñu def ñu pare joxaat gouvernement mu jàngat door a def donc looloo tax boo seetloo bi ñu koy wax 26 septembre ak léegi mën nga jàpp ne juróom-benn weer am na yeneen njëkk yëpp wax nañ leen waaye lépp lu jëm ci luyaas def nañ ci juróom-benn weer sans compter at ak genn wàll bi ko jiitu nga xam ne liggéey nañ ci ba fii donc li ñu bëgg nag léegi fi mu ne mooy jëfe waxtaan nañ déggoo nañ pencoo nañ léegi dañuy dem sur le terrain région bu nekk am commission am département bu nekk am commission am ku am jafe-jafe nga ñëw wax. priorité commission bi mooy fexe ba li nga xam ne moom mooy mbirum location mu tegu ci yoon ndax ñëpp xam nañ ne location yoon moo wax nii ak nii ak nii la war a tëddee te kon loolu mooy suñ mission première nekkul rek wàññi location bi mais népp loo xam ne moo jëm ci location nan la war a tëddee li texte yi wax ñun. taxaw pour loolu am mooy première mission bi beneen mission bi mooy defar tam yi nga xam ne mooy tax ñu mun a gérer li nga xam ne mooy location xam ngeen ne tey yoon dafa wax ne kuy def location da ngaa war a def li ñuy wax cour surface corrigée te surface corrigée texte bi nga xam ne mooy décret bi nga xam ne moo ko wax daf ne boo koy xayma am na beneen texte boo xam ne moom nga war a xool muy décret bi nga xam ne mooy wax ne terrain bu vide nangam lay jar terrain bu ñu tabax nangam lay jar région bu mu munti nekk ci Sénégal département bu mu nekk mën na nekk ci Sénégal texte yooyu nag pour ñu mën koo modifier day am ñu liggéey ci li nga xam ne moom mooy commission départementale yi su ko defee commission départementale yi yëkkati éléments yi mu ñëw ñu jox ñu ko ñu faram-fàccee ko defar texte yi beneen arsenal juridique bi mooy ne gis nañ ne li nga xam ne moom mooy ñiy liggéey ci mbirum location moo xam agent immobilier moo xam agence immobilière moo xam bailleur courtier am na benn texte boo xam ne mool nañ ko ñu ngi koy finaliser pour que ñu def ñoom itamit li nga xam ne mooy régulation ñooñu pour ne ku nekk xam li nga war a liggéey su ko defee jafe-jafe yi nga xam ne li koy waral li ci bari mooy ñàkk xam li yoon wax ñu mun koo indi pour que ñu mun koo lijjanti. waaw liggéey bi liggéey bi door na depuis la premier mars fekk sax bureau amul dara amul donc liggéey bi itam day continuer parce que am nañ ay locaux yoo xam ne mooy locaux ministère. du commerce moom la ñuy utiliser pour liggéey donc liggéey bi day door euh, xaar moom amul parce que dafa nekk loo xam ne lu yitteel sénégalais yi kon ñu ngi jublu ci liggéey bi fekk ne xaaruñ sax ay moyen wala dara pour def liggéey bi ndax euh, lu mu soxalee sénégalais yi looloo waral li nga xam ne ñu ngi koy def nii tey jii. liggéey bi tàmbali na depuis longtemps euh, ñun nu ma nu ma ko waxee léegi ci français dañuy dabee dañuy wàccee loise loise bi fekk commission bi amul commission bi nag crée que le ñu ñëwee nag xaaruñu am. jumtukaay yu nga xamante ne day fonctionner liggéey bi ñun ñoo sóobu ci liggéey bi euh, créer suñu suñu suñu euh, texte yi dugg ci données yi parce que am nañu benn serveur boo xamante ni Sénégal ci la ñu oote xam nañu kan moo ootee lan moo tax mu ootee euh, lan mooy son son problème ñu jéem a classé loolu lépp pour que ñu mën a def le diagnostic ñu xam ci nan la mel bi ñu ko defee nag ñu proposer ministre bi mu installé ay commission euh, régionale ak départementale parce que ñun euh, suñu liggéey mooy naka la ñuy def pour coordonner liggéey boobu pour ñu mën a kaa euh, jëmale kanam mooy suñu liggéey mais tra liggéey bi ci suuf lañ koy def mooy commission régionale ak commission départementale ñoom ñooy jubale ñaari Sénégal yoo xamante ni dëggawuñu ñoom ñooy saytu naka la ñuy def pour Sénégal bu nekk accéder au logement ñoom ñoo war a xool également naka la ñuy def pour bu ne muy bailleur bi muy euh, euh, muy locataire bu ku ci ne nekk ci ay droit am adéquat waaw xam nga euh, matière de si lu bëri dëgg nañ ko ci ñu ngi tàllal nopp yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dem mais lu ci am solo mooy aujourd'hui bu ñu xaymaa mois d' avril bi nag junni ak ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak benn plainte gis na ko bi ñu koy éclaté ci département Dakar yi kii Dakar moo ëppale huit cent kii juróom-benn Euh, juróom juróom-ñetti téeméer ak ak euh, cinq euh, donc ak juróom benn juróom ñetti fukk juróom voilà huit cent cinq demandes ah. parce que pël bi wax wolof la donc donc bu ñu xëy ba parce que dañoo wax ne sax du ñu créer commission départementale Dakar parce que ñu dañu yaakaar ni commission région bu nekk amul service départemental commerce mais bu ñu xoolee résultat Dakar bi huit cent cinq demandes ñu ne obligatoirement il faut ñu xaaruñu sax gouverneur décider léegi nag lu ñuy def ci temps fii fan yi néew ñu jël demand yooyu yëpp ñu toog ñu oo nit ñi ñëw toog ay ministère euh, kii affecté ay volontaires ay xale yoo xamante ne ñoo ñu jàppale ci liggéey bi ñoo yóbbu convocation yi ñooy ak euh, sénégalais yi ñu ñëw di di ñu xool naka la ñuy régler problème dañoo bëgg ku nekk am foo xamante ni yaa ngi juboo ak sa bailleur mais également bailleur bu nekk juboo ak son mooy suñu message tribunal mooy lu mujj kon dañuy wax ni sénégalais bu ñu waxtaan rek jubóo te ñun mooy suñu conciliation dañuy jéem a concilier nit ñi juge moo ci mujj balaa balaa même région yi balaa ñu mën a saisir juge bi il faut que ñu ñëw ba ci ñun ñu ñooy xool naka la ñuy def pour jéem a xool euh, naka lañ ko mën a rek donc vraiment ñu ngi woo sénégalais yëpp bailleur bi ak locataire yëpp ñuy jiital xel yi ak xool yi pour que ñu mën a déggoo pour l'intérêt national